tey sunu ay nawle la dañoo jóge seen ay dëkk ñëw fii di ñu taral si di ñu ziar di sargal ñu war a may suñu bopp toute discipline liggéey li ñu liggéey parce que lii boo gisee monsieur le sous-préfet ñoo toog parce que lii activité bi am solo ci fii ci commune Pekes dëgg la naan dañoo ñëw tey soog a ñëw waaye bu ñu ñëwee fii.

fekk ma dina ci liggéey boobu yàgg ma ci liggéey di dox jéego yu mag ànd ak addiya bu Pekes ma ànd ak ñi ma ànd ak sama ñu ñëw fi toog pour déglu leen ngeen wax kalabas bu ci nekk mu li ëpp importance ci cérémonie bi dëgg animation waaye déglu tamit li nga xam ne moom tax a jug tamit am na solo parce fii ay techniciens yoo ñëw te yow nga xam ne ngeen doon liggéey lan la. ma ànd ak sama partenaire bu tudd ay fleur ñoo am ne indil ma bëgg ngeen meñ guddi ngeen déglu loolu waxtaan bi ñu pare naa yéen ba suba teel fi lay fanaan fanaan fan ci waxtaane way joxe école ba suba teel kon ngeen meñ guddi jërëjëf waaye nag maa ngi yow ñoo àndoon développement développement ma waroon a tàmbalee sant sax jigéen ñi ma àndal ko ci département bi di liggéey te dégg seen i tur fii ñu ñëw te Ndeye Saly leen a ñu yëkkati de développement rek bi ngay ñëw Pekes ñëw ñoom xamal ñu dañoo bëgg a indee lajet Pekes booba ñun xamul luy lajet ñu ànd ak yow dugg ci commune commune Tiraal bi nga joxe ci sa xaalis ci sa wërsëgu bopp te li nga doon ko def nag. mooy sa jëkkeer gi di Pape Diène ndax Pape Diène mooy ko mbokk Pape Diène la mu dëkkal mu dëkk fii ci Këraale papa nekkoon fi ci Pekes dëkk lu mu ñëwé talal tàllal loxoom Kajoor ànd ak moom bokkoo Thierno Gueye wan na ko ni Pape ni la bëgg ngeen ànd ak moom ndax su ngeen ànd ak moom dina leen soppali tay wax bobé amna lu ci am ñuy sant Macky Sall ndax li tax dañu koy sant li nga xam ne am nañu ko ci Pekes ginnaaw yàlla ci ànd bu ngeen ànd ak moom ci lañu ko jëlee ndax boo xoolee commune fii di PRP Thiès soo xoolee dëkk yi am lan bi ngeen ko am soo ñu fi jël ñu nekk Sénégal ñi nekk Sénégal ci Macky mu am soo gisee ñu dem ba am fii ay directeur am fi ministre ci Macky Sall lan ko am kon su ma waxee bala noo wax dara dama wax dëkk gërëm Macky nu defal bii teraanga ndax yàgg nañoo politique Pekes département Pekes département Tivaouane kenn du ko tudd arrondissement Mérina Dakhar te tuddoo Pekes te lu nekk defante nañu ko te mosunoo am lii. te yow sa Sall yaa njëkk a langal Macky Sall fii ma taxaw di wax li Macky am Sénégal ba am yaakaar fii la ko gisee yaa ko ko defal. danaa wax ci politique tuuti soog a ci légit ba a may jox ñetti téeméeri bu ma di ko séddale booba xamoo di nga noon ministre. nga dima indil ay juróomi téeméeri bu jigéen ñaa ngi ñoom laa ko doon jox ñu ne ko sol nga indil nu fii ma taxaw biir màkk ñu séddale ko ndoy sali yaa ñu ko defal ñuy dem ba nga xam ne nit ki ay solo ak i amul benn chance li koy jëriñ mooy mu développé ay jaboot lañu war a suqaliku nga indil ñu ay leget leget yooyu ni lañu ko indilee leget bu mag bu nekk Pekes bu nekk ci meeru Pekes am nga 200000. maa yow ak jigéen ñi am na ci ñoo xam ne ñoo ko doon joxe yeneen légat yi am ay cent cinquante mille yeneen légat yi am cent mille francs yeneen légat yi gën a tuuti am soixante quinze mille francs légat yi ci gën a tuuti am cinquante mille francs temps bee tax duma ko mën a lim par légat da mën naa koo joxe fii par légat waaye temps bee tax man nag légat bi nga xam ni yore naa ko ci laay mën a commencé wax kere bi ñëw di ñu seet si fekk nga ñu ak 100000 francs ñu wan la ko 200000 200000 lan la woon ci sunu leget manu la ko wanee nga jox ñu xaalis ba ñu commencé ubbi bitik sama kër di jënd lépp lu jigéen soxla di ko jaay ku jëndee ci ku jënd faneen nu alamaan la def ci sunu kees dimanche bu ne ñu joxe juróom fukk kenn ku ne juróom fukk bu weer kenn ku ne joxe 500 ñu di ko dajale. Mais nous le 24 décembre avons une defee situation am nañu 1 million 230 le 24 décembre nous avons wax le même commencé le 24 décembre le 12 dimanche bi passé le 12 xawma le 11 le 11 février le 24 ak le 11. dajale wax nañ fi cent soixante quinze mille franc xaalis te yàlla dafa dogal sax bi ñu commencé boutique bi ba yàgg man ma am tolofu tolofu feebar dem hôpital ndokoon tey su ma taxawee fex dama la naan day sali suñu léegi tegi ci 2 millions yàlla def nag bi ñuy commencé léegi ci amoon nañu kooku loolu waaye looy def bu amee njariñ ña lay xool te iñaan ñu te wax te yàlla tax danañu xam ne lii njariñ la ñëw bokk ci sunu léget fii may wax ñu ngi ci juróom-ñaar fukki nit ak benn yu bokk may balu ak dafay am nag lu may balu wax mooy ñi nga xam ne dañoo bokk sama léget te tiisu bi nu soxla woon war koo xotti ñëpp bokk ko bi ñu demee day sekk dem ñaar ñaari yoon téléphoné na lu bari waaye tiis bi dafa manqué ba juróom-ñaar fukki jigéen yeeg benn amuñu juróom fukki jigéen yi rek ñoo sol ñaar fukki yeeg benn kenn solul ma di leen di di leen ci nag di ñaan rek ngeen jéggal nu ko xam naa sax waxtaan na ma ak yéen waaye dama koy leeralaat rek di leen sant ndax bu leen neexoon mer waaye da ngeen ni lépp leen la defaral Ndeye Saly yéen ñëpp bëgg Ndeye Saly Ndeye Saly ba nga ñu daree defaral du lii yàgg na fu nu ma sa soxla taxaw nga fa nga bëggal nu sa bopp waaye Kajoor fay na la ndax boo xoolee lii fi nekk ci département Tivaouane nga xool lii nga xam ni moo dëkk ci commune Pekes sii jigéen néew ma desul waaye li des ci ginnaaw ay mag la ak xale yu ndaw lépp nag dañ laa mënta fay ndax yow da ngaa bëgg baab seen sa jëkkër te baabay sunu mbokk moo dëkk fii di Kajoor nga ñëw xeeboo ñu yeboo ñu xam ne ñun say jëkkër lañu Kajoor ku fi dul sa goro sa jëkkër la baa muy sa jarbaat yu jëkkër nga jël ñëpp teg ci sa kanam loo def Dakar li nga def Pekes mu li nga def Kajoor moo aw awral moo gën a kii la nga def Dakar nday say lan lay ñaanal yàlla yàlla a yegg yàlla man nag fu ma ma sabakaak yow neewoon naa la ministre rek laa bëgg nga doon ko ñu ko ñaan ci ki ma yaakaar moom sëñ baara yàlla defal na ko tey nga nekk ministre sa jëkkër nag il faut moom ma wax ci dara ndax Pape Dieng lu nu am mooma ndax Pape Dieng kanu ko joxoon mooy Thierno Gueye ñëw boole noonu moom ba ñu ba muy tànn daf ni këmat doy mooy Pape Dieng moom laa tànn lam nu waxoon dara dañu ci Pape Dieng yaa nu jëlal suñuy ñu dem Sénégal yaa ngi yóbbul suñu xale Sénéor yang yang yaa ngi yóbbul courant ci suñu commune rural Pape Dieng noog yow ci dëj yi Pape Dieng noog yow ci ngénte yi Pape Dieng noog yow ci lépp lu mu soxla Pape Dieng ci yow laa gis responsable bo xam ni dañu koo daaneel dafa def ay élection commune ñu daane ko bët set no mu weeru koor juróomi fan ca weeru koor ya nga indi fi li nga fi indi ci ceeb ni ko ni ma séddale leen laay ma ngay ak may sa jóob allah di naas ba nit amul ku ànd man ku àndul ak man la ñëpp am loolu yow laa mos gis responsable bu ko def ndax nit su dee nekkee ci bokkam ñu daane ko war a dëkk day mer bu def dara yow nag loole faale woo moo tax yàlla jox leen teraanga bi mu leen jox ñu nag noog yow rek noog yow te duñu bàyyi ak jigéen ju ma déggal ndax woowuma jigéen ñi di leen yóbbu ci dul seen njëriñ damaa xam ne yaay njëriñu jigéen ñi sa jëkkër a jariñ dëkk bi ak jiw bi jiw bi moom kuy baykat tey bay jox nañ la jiw kuy baykat tey bay partenaire jox nañ la jiw ñun partenaire dëkkuñu neexuloon nax ndax ñun Kajoor la ñu dëkk te ba ñu juddee am 17 ans la ñu dugg ci politique ba bisu tey ñuy wax ku ñuy nax xam nañ ko ku ñu naxul xam nañ ko. partenaire na ko kenn dangay ñëw développé dëkk bi jërëjëf nday Saly noog rek boo demee nag ne waxal ma Macky Sall nee

li ci dalee liggéey léegi am nañ téeméeri junni ak ñaar biñ ci nag biñ ci liggéey ba loolu nag di sant Ndeye Saly di ko ci gërëm ndax lu mu bëgg a jóg rek lañ doon def ñun Ndeye Saly bi mu liggéeyee ndax ñun Pape Dieng lañ jëkkoon a jàpp ndax Pape Dieng mu ne lëkkati nañu woon ñëpp faral ñuy dénkaane amul lu courant waa dégg ñun lu courant ni courant bi jàllee dëkk bi amul ñuy gasan ndax xooloo gasan yomb danoo indil ay ban ñaar ñi nga paa nekk seet bu ne ci ban yi dañuy toog bu tawee ba si rek gën a góor yi ci la ñuy toog ndeysaan di ci jaar ci yoonu Pathé woowu kon day nekk sa Saan ba Diop Saan lu lu muy wut rek yàlla Seydina Muhammad wasalaam. waaw dinañ ko jot tamit ñoom mën naa ko ndax yow yaa lépp li lépp yow la ñun bu demee ba nekk di jàpp politique bi yow yaa ngi koy boole ndax li duñu dara dégg nañ lu nekk waaye nag yàlla baax na lii rek lan bëggoon ñu ne madame la ministre madame la ministre sa yan bi yar na. liggéey yal na avancé jëm kanam Ndeye Sallé yow it ñaanal nañ la fi la président Macky Sall teg yal na la jëm na la yóbbu fu gën fi nga ne parce que ñun ñii kuy tëdd ñu ngi lay ñaanal kuy ñaan ñu ngi la ciy boole teg sa borom kër kon nag li ma mën a wax mooy. actuellement ban ko commencé ay 100 francs 100 francs lañ doon joxe ñu dem ba xam ni 100 francs yi men ko yokk bañ ko yokkee ñuy def 200 200 am na temps boo xam ni néew ma fi woon dafa am fu ma demoon ba ma ñëwee leket gi commencé woon na am problème waaye bañ ma fa dee ne ma yaay président bi. ba ma ñëwee yàlla teg na ci loxoom ñu ngi natt normal 100 pour cent fi mu ne nii ñu ngi nekk 900000 ndax 150 la ñu débuté actuellement nii ñu ngi ci 900000. gudd tey sëriñ boo fi yàggee loo fi yàgg jigéen ñi gën a jekk loo fi yàgg rek jigéen ñi gën a jekk tey sëriñ jaar naa man fu ne yóbbu nga nu fa bi xaas finance nañ la yow fii ci PKS tey ak li nga war yaa fi ñu doon toog jigéen téeméer bi tey sëriñ lu mat a def defal nan ko lu mat a wax waxal nan ko kon tey sëriñ yàlla taxale moo mën a jàppale place bi nga toog yàlla gën a jëm kanam

li jigéen Pekes war naa am ini, ko fi anak ndax li ma am nag gannaaw yàlla Pekes ci la bokk mag sama jëkkër kon li mu wax dinaa ngeen déglu ko bu baax parce que lu importance la kii du ku ndaw ki dafa gu mag la gu laa dëkk ba mu dëkk muy sama càmmiñ sama frère yoraloo maag moom mu am ONG bu rëy di liggéey lu am solo ci réewum Sénégal mu ngi déglu ko déglu bëgg mu am lu mu indi ci jigéenu Pekes nga déglu ko parce que rek ñuy li ñu bëgg a wax ñu bantuwaat ko Aifor international Aifor ba leen ko déggee mooy ci baatu wolof mooy euh, maanaam nag bu ndaw boo xam ne amagul amagul doom mëlu dañ koy wax pël yi di ko waaye ñale loolu mooy suñu logo ñu ngi nekk ci 126 pays dans le monde maanaam téeméeri wet ak ñaar fukk ak juróom-benn li tax a jóg nag mooy xeex loolu ah, ñun nag ñu ngi liggéey ak réew bu nekk bu ñu nekk dañuy xool ndax politique gouvernement bi bi ñu taxawal politique bi ñu mool politique de développement bi ndax xel mun na ko bu ko defee ñu ànd ak gouvernement boobu xool luñ ci luñ ñu mën a def léegi nag dañu gis liggéey bii mënuñu loo xam ne nii am na sax ñu créé woon réew bu ñuy wax Inde ñun ñëpp xam ngeen Inde réew bu ñuy wax Inde kooku Grameen Bank lañ fa créé woon mais léegi tey sali mu def dafa nekk benn maanaam euh, dafa mel ni. Euh, ben émergence bo xamni mom la la créé à caractère endogène manam lo xamni dafa dafa mel soxé ko ci katan ak mën-mënu nit ni ba paré ñu dubé ko calabas manam calabas léegi dafa am dafay dafay firi lu bari ci ñun suñu culture motax ma ngi waxtaan ak euh, Cirello mari ko li mom lu ñu wara fessel la parce que ben initiative lo boo xamni ne na sax mu na gënal Sénégal.

motax ñun dañu yaakaar ne bu ñu àndee ak ministère de la femme dinañu njëkk a def benn jéego bu njëkk boo xam ni day nekk capitalisation de l' expérience de calebasses fii ci Pekes ak feneen foo xam ne fii ñoom tam yaakaar na war na fa am. léegi booy liggéey ci intermédiation financière mun nga teg sa tànk ci ñaari pàcc maanaam mun nga liggéey ci ñaari ñaari yoon benn bi mooy renforcement des pratiques existantes maanaam li nga xam ne mooy moo xew mooy mooy mooy moo am nga renforcer ko beneen bi nga appuyer l' émergence maanaam donc yeneen gox yoo xam ne yi mun nañ ko waxtaanee yoo xam ne yooyu euh, Calabas yi amagul foofu ñu appuyer émergence boobu euh, ci gàttal xam naa ne mu ngi guddi noonu la mun a waxee ne perspective de collaboration yi nous n'avons pas la sur le ministère de la Femme, pour les régions de Kolda, avec la région de Kafin, avec euh, le Ferlo, la région de Matam, dans la région de Ferlo. Mais aussi, nous avons eu un ministère, faire une fois que nous avons eu un ministère, nous avons parce que nous avons eu un contre la pauvreté. Et nous avons eu un ministère dafa war a am dafa am importance pour ñu capitaliser ko manam léegi lo xam création endogène la madame le ministre moko ko ànd ak jigéen ñi ñu créer affaire ko kon léegi dañ ko wara a doon def propriété sénégalaise boo xam ne bii la jógee fii la ko les femmes sénégalaises ont créé euh, une nouvelle forme d'intermédiation financière informelle wala wala formalisée ça dépend mais dafa doon loo xam ne nii moom liggéeyal na Sénégal benn affaire bu PKS rek liggéeyal na Sénégal benn affaire boo xam ne Sénégal mën na ko yóbbu ci àdduna bi tamit kon ñu ngi lay félicité madame la ministre ñu ngi félicité tam jigéen ñi nga àndal am na benn jigéen ku njëkk jël kàddu gi fii femme de développement la lu ñu wax dafa am solo lool kooku tamit ku jara àndal la ci sama gis-gis euh, ci biir capitalisation bi

waaye tàcc lu mooy jël tàcc Bye oh, Shit, shit, shit. I'm here. Monsieur honorable député, le député maire de Mélé Dakar, mon frère et ami, Amir Nig. Honorable député, cher conseiller conseillers des collectivités territoriales, chers amis conseillers économiques, sociales et environnemental monsieur le maire, population de Fekes chères femmes, chers amis, chers invités. Je commencerai mon discours d'abord par remercier les populations de Pékès, particulièrement les femmes qui sont engagées dans le processus de l'organisation des femmes depuis très longtemps. Donc je profite de cette occasion pour vous saluer et vous remercier. Comme l'a dit tout à l'heure mon camarade et frère Monsieur le directeur général de AIFE, je pense que nous sommes engagés dans un processus très important. Ce processus pour l'autonomisation des femmes, nous l'avons engagé et nous pensons que nous irons, que nous atteindrons nos objectifs. Parce que nous avons tous les outils qu'il faut et nous sommes en train de travailler pour être en place les dispositifs qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Donc en vue de faciliter l'accès des femmes aux facteurs de production, le gouvernement du Sénégal a mis en place le Fonds national de crédit pour les femmes et le Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. Ces dispositifs sont dotés de ressources publiques importantes, mais opèrent par refinancement à travers le système financier décentralisé et fonctionne souvent au modèle économique adapté aux couches défavorisées. Des garanties et autres formes d'apport sont en effet posées comme préalable à l'accès au crédit, même si, le taux d'intérêt pratiqué est élevé par rapport au système bancaire classique. C'est dans le but d'offrir aux femmes initiatrices de micro-activités des alternatives face à ces contraintes que la base de l'émergence a été expérimentée dans diverses localités, marchés et quais de pêche, notamment en Grand Dakar, Bututerie et Pékès. Pour vous, c'est mu ñëw fekkee tey sant si jigéen ñi nuyu leen bu baax kontaan ci ñoom parce que ma xam ne fii ay jigéenu jàmbaar ñoo fi dëkk. di leen nuyu baax na di ziar ñi fi toog ñëpp kenn ku maa ngi lay nuyu turam ak santam du nit ki dafay fi ku ci ne sa tur di kontaan seen teewaay parce que nag ñoo bokk dëkk Kajoor te kenn ku ci nekk rek am nga engagement am nga taxawaay ci dox ba nga dëkk kon monsieur le maire maa ngi nuyu. sa loxo sama camarade ay miru ñëng mu joxoon ko maire def di beral nuyoo sama frère le président Macky Sall maa nag moom démb sama doomu ndey di ma jàppale di ko jàppale suba ba léegi bàyyi soxlaam bàyyi itteelu ñëw ànd ak man ci liggéey bi kon le di kontaan ci yow di wax na nag ñun ñoo fay le président Macky Sall ndax man ku ma xam ba ma nekk xale bu ndaw ba léegi ci loolu laay dox ci jàppale jigéen ñi lay dox ak jàppale askan wi. yaa dogal nag ma ñoo sama jëkkër dëkk fi alaay papa ja mu ñaawul mais. xam nga nag loolu mën nag ma loolu moom moo tax de moom ma jàppale moom ma tete moom ma dimbali. dama ne xale bu tuuti xam ànd ak moom mu dëkk Pekes kii ma di fi ñëw di ànd ak moom di ñëw jaar yoon bi di dem. Référent Diagne dem fii benn lampe la ak ben lampe mu nekk un jeune ingénieur di liggéey Sénégal ne man nak fama ma dëkk dafa war am courant bu mu nekk ci bureau di liggéey la mu njëkk def moo jël ligne bi ngaay indi ko fast way ku am courant ci Pekes nee na jërëjëf Pape yaa dogal nag ma bëgg ko lool bëgg ko am lool ma def gàttal lool mu ne Pekes nag di ko jàppale ci ma gis ne jigéen Pekes dañoo sonn dañoo soxla ku leen dimbale ma fekk ay jigéenu jàmbaar ñu am jom ñu la présidente Fatba Diagne parce que lii yëpp jigéen Pekes bu ci amee taxawaay tey moom am na lu bari lu ci dox jigéen ñi nag yàlla dogal ma ànd ñoom bu yàgg avant ma nekk ministre de la femme. bu nekk ko ko jàppale Pamé classe la fi njëkk àndal ñëw fii ci commune Pekes dugal fi lu mat de francs CFA yoo xam ne dugal naa am na bu fi nekk te groupement de femmes bu fi nekk te laaloo ci commune financement yooyu amoo 500 millions de francs. waaye dama ne bu ma démb doon tey bu ma delluwaatoon nekkaat démb du ma doxale noonu parce que nag li ma wax léegi en français mooy ndax naam lebal jigéen ñi liggéey baax na waaye jàngale ñun ko lu ñu nappe dafa baax jigéen ñi yàlla dogal bi ñu àndee PMECAS ñëw fii nee naa bëgg démb dama dem ci benn village man tey bu doon na sama xel bi mu amoon tey amaan naa ko démb tey dama teg sama loxo ci li ma fi def dinaa fexe créé naa ay micro entreprise yoo xam ne femmes yaa ngi ciy liggéey ba lëkkale si waaye boobu nag jigéen taxawu ni ma ci financement ba ma jox leen financement ñu jël ko liggéey ci am nañu ci liggéey certes mais am ñoo xam ne dañu cee def yoo xam ne ëllëgam si mënuñu ko fay mu gisal leen. yaa dogal man dama bàyyi tekkees mukk jigéen ñi ci ñoom rek laay dox yéen rek laay xalaat fu ma toog rek yéen a ma ko ci ma xalaataat jigéen ñi ku leen jàppale ñoom seen bopp mun nañ jàppale seen bopp maintenant teg la calebasse de l'émergence village bu nekk ma dem fa waxal jigéen ne dama njëkk a woo jigéen ne leen ndimbal day fekkee loxo borom ci biir man bëgg naa leen dimbale waaye da ngeen daje ngeen bokk bokk ndey bokk bàyyi déggoo seen ay gox saxal fa entre aide kenn ku ci nekk boo amee dërëm indi ko am ñaar dërëm indi man su ma demee sama kër ma toogee ba réfléchir lu ma am dinaa indi dolli leen moo indi la kala bi mas ba fekk ci loolu ñoom tam ku ci nekk fa nga dëkk ak gox ba nga nekk nga def ma def une tournée de toute la commune village village Calabas ma dem fekk liggéey yëngu am dara ba pare ne leen nag. la ngeen liggéey liggéey bi nag yéen a koy xoolal sax li ngeen xam ne yaakaar ngeen bu ngeen ci liggéeyee mu baax rek liggéey nañ ci ñi ne ñoom dañuy def seen boutique de l'émergence boutique de l'émergence mooy calebasse bu tegoo boutique ba fay lép lépp loo xam ne jigéen dafay soxla ñu koy jaay seen biir dem ci di dem ci naar mu leen koy jaay bénéfice bi nga xam ne moo la naar bi di engendré ci boutique am ñu fexe ba am ko seen biir calebasse wala ci yaa def ñoom 70 villages ak biir Pekes nga xam ne nii après 6 calebasses mu 79 calebasses yoo xam ne def nañ ko ci commune commune Pekes bu ci nekk bi dox. ma ne nag jigéen ñi tey jii dañu leen woon nag évaluer calebasses yi ba xam ku que en tant de man am naa vision bu am léegi si jigéen ñi. ma damaa bëgg jigéen ñi ku ci nekk fa nga dëkk ak gox ba nga nekk ak nga dëkkal ngeen am ci lu ngeen di loo xam ne dafay pérenne dafay durable ngeen teg fa di ci liggéey ma jàpp ci man rek. أنا بس بقول إله بالوي كالباس بس كنا توقف كالباس ما تنا نفنس البروجي بوا خامنة ده نك البروجي ده خامنة ده جنر أي لون جنر أي شخص ده خامنة تمام اللي بيجي أكلنا بقول كم بكس جارا مايل بس ناس اللي جاي خامنة تخون جن خامنة أم جن جم بجن اللي جاي تدنا جاب بس اللي جاي اللي جاي البروجي نك لما بقول كم سامبنا كلك منو ما نيو تفكس indi fi ay projet parce que dama am position ba permettre mu loolu ministre de la république laa su may ñëw Pekesse département Tivaouane laay ñëw jigéen ñëpp laa boole nekk benn. dama ne léegi la camarade ay miru bu dem ak le maire bu leen dem parce que expérience bi ñu defee Pekesse bëgg naa kenn ku ne def sa gox pour jigéen ñi man ma ñëw jàppale leen ñi tam ngeen jàppale leen parce que c'est un outil non seulement de développement mais c'est un outil politique aussi. parce que jigéen ñi boo leen jàppale développement ëmb sànq ëmb sa kersa koo jàppale mu liggéey jàppale suqali ko du am dara da lay jàppale ko te yéen tam da ngeen war a jàppale jigéen ñi tamit am lu ñu leen doon seen biir calebasse pour ñoom tamit mën a dem kon bëgg naa maire yi maanaam interpellé interpellé responsable politique kenn ku ne boo demee gox ba nga dëkk da nga fexe ba sa commune ak jigéen nga tegale ay calebasse de l'émergence bu mutuelle liggéey parce que loolu tam lu am solo développement parce que l'État ne peut pas tout faire kon. te bés bu rafet la kontaan nañ ci li am solo mooy Calebasse ñu ngi ko dëgëral di ko dëggal ba nga xam ne ëllëgëm si bu projet di ko indi bi projet de développement yi am jigéen di ko indi ci biir Calebasse bi Calebasse ko gérer nga xam ne ngeen di formé financé leen appuyer leen conseillé leen ba ëllëgëm si bi ngeen nekk demal seen gox bi mën ngeen seen entreprise yoo xam ne dañ ko mën def loo xam ne ngeen am njëriñ boo xam ne ñoo ci yéen ci yéen askan ak ay doom ci dëkk bi jigéen ñi kon ndox ñu dugg du fas dafa guddi sant ak ngërëm rek na di remercier rek population Pekes yëpp bàyyi ma kenn góor ak jigéen mag ak ndaw parce a na parce que parce que li ma indi may ma ko léegi ma fay yàq am sama yu baax ñu bëgg di ma jàppale dépp tey sama ñoom alaaji mën may fas. fii ci Pekes wala ci fan mu dem ci suba bu ñu ñëwaatee defal ma daraan bu dee man bëgguma leen a fay man waxuma rek sax teraanga yi waaye bëgg ngeen ma bëgg ak jàpp ngeen ma jàpp fonk ngeen ma fonk fonk sama jëkkër man bëgguma leen a fay. bu dee nag lu am solo mooy 2019 defe naa Pekes nag jigéen bu na ñëw na fi ndax nee nañ dañu ne jigéen bi ma ne ndey sali Pekes danga naa dama fi ñëw. waaye nag sama Dakar rek ci biir PDS keneen mënu ko fi man du ma jigéen buy diggaate du ma jigéen buy naxaate du ma lekk xaalis jigéen ñi damay dolli jigéen waaye du ma leen du ma leen du ma du ma leen triandé mënuma Sénégal triandé jigéen Sénégal yëpp ma ñàkk a def wala ndax man du def loolu damaa ñëw dëkk fi su ma xam ne identité ñëpp xam na fi man taxawaalu rek ba fekk des de dama koy dëkk. ñëw di fi liggéey jàppale sama jëkkër kenn du ma laaj tax loolu may def nag yéen tax ma di ko def ma bëgg nag engagement boobu nag mu dëgg mu sax ñu jàppale président Macky Sall parce que kenn du président Macky Sall dina Sénégal kenn bu moom ci li def ci fonk jigéen ñi ak jàppale leen dafa nekk dëgg de madame la ministre ma bëgg jigéen ñi may financement yi ma président loolu mënta nekk mën dañoo sonn kon xam nga ne jigéen ñi am na yéene maximum projet yi am Sénégal yëpp pour jigéen ñi la couverture maladie universelle anamu pour kan la pour ñun. ban président moom mos a joxe mi moom mos a joxe rek bourse familiale anamu président yi daan Sénégal yaa ngi toog seen kër yoo seet ay milliards borom mosu yu gudd ñëw ñu may leen ci waaye président dafa ne man ci base bi laa jëm jàppale jigéen ñi sonn ku ne ma jox la. am na ñu koy xeeb waaye jigéen ñi ko def ñoom xeebuñu ko parce que xam nañu am na njëriñ ci ñoom. mu ne nag damay jot xale yu ndaw yi nga xam 0 à 5 ans dañu am gratuité duñu fay hôpital jigéen bu ko césarienne do fay loolu yëpp bu jàppale jigéen ñi ak yeneen ak yeneen ak yo xamné yi nak président mi ko koy xalaat te lépp day ñëw si yoon kon nag jàppale président mu am deuxième mandat au premier tour. parce que bu jàppale président man suñu bopp na jappalé parce que Kajoor nag li ñu am mosuñu ko ande te bu ñu rëccee des opportunités qu'il faut saisir parce que nak bu ñu ubbee buntu pour nga war a jëm kanam da nga jaar ci buntu bi génn kon jigéen ñi maa leen interpellé interpellé population Pekes naxaate bi sen doy taxawaal bi dafa doy seen xaas yi nañ ko lekk naka man kenn du man ci Pekes kenn mënu maa remplacé ku ma jéem a remplacé sax